di ko teg ci loxol jëmm ju baax ji kii doon mbootum ñoñ ndaam looloy waarisu sirri ahli nda ku ci mësa nuyu Cheikh Ahmadou Bamba dara naan say mam ku ci mësa nuyu Cheikh Ahmadou Bamba boje jébbaloo ba rocc sa loxo bu la ñaanalee nga taf ci sa kanam naan ana non def ak téere bi yàlla bi ndax ni ko Touba ku ku ko jox sa bop bo sa loxo dina laaj no def ak bi daa xam ni ñoom ñoo man alxuraan waaye moom moo moom alxuraan moo moom alxuraan ñi man alxuraan sëriñ bi sëñ bi nu ngi lay ziyaara bu baax a baax a baax gën jaa jotu ziyaara wàccuwaay wi la sans borom jox ñoo ngi la ciy wàcc noo ngi bëgg ak di bëgg ci sa jëmm fu nu toll donte jëmm ji ñëwul xol bi moom mu ngi ñëw saa su nekk ndax ñun benn connection la ñu am mooy Cheikh Ahmadou Bamba fi mu toll sunu lobby pour nga dugg rek dañuy xam ni da teg seex Ahmadou Bamba fa mu nekk foofa nag dem fa du njàmbaar ndimalu yàlla la te yow ziar bi noo ngi ciy rafet njortu de sëñ Fallu bi muy ziare ji ki ñu la tuddee da koo wax ni inni ataytu li wajhi llahi zahirukum abxi bihi nayla ma arju wa ahwahu te kookoo juddoon ci jamono jii ñu nekk sëñ lu Mbàkke ziar bi lazar n'existe pas na ngeen rafet njort ci lu ngeen bëgg mbaa ngeen yaakaar ko di ngeen ko ci jotee loolu la alaaji Fallu waxoon turandoom te moom la du ko tuddee te ku xool ni mu waxee xam ne tur wuyu na borom sëriñ Tuubaa nag du nit bees koy roy waaye tur nag sañ naa wuyu borom sëñ xaadim tur wuyu na boroom suñ la tuddee ahmadul xadim nag ku la ragalul daa dof ak noo sant neneen mi yàlla la lay dend bi ak tey ku mel ni kiñ la tuddee mus cee wàcc wa rabbul kaaba su amul yàlla bu ma ñibbi Ndakaaru ku mel ni Seex Ahmadou Bamba mës ñëw jamono نزعني من الورى باخ الخديم علمهم بانني عبد القديم قنا خوك لا تود ياو ايه سيرن مي كينوكو تود ليمو ام اب يوننت صاح موسوكو ام مونوكو واخ دي ما واخ لهو خطابي خبل ربي حبلي ما لم يكن لصالحين قبلي تيالان واخ ني يوننتي اي صالحين لان دمال لان عام wa zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullun min as-salihin suratul an'am aya 85 kiñ la tudé kiñ la tudé ci bir yonent yi la ñuy wax diwa gën diwa gën diwa gën ba ci muhammadu rasulullah ñu ni mo gën ñepp sallallahu alayhi wa sallam moo riñaanoon ci wër wi nu nekk kiñ la tuddee néna na bokkuma ci raaw gënante bi ki gën ñépp mooy yàlla ci biir gënam gi la ma dugal ma gëne fa demal israil unzur kayfa faddalna ba'dukum ala ba'din wal axiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila sa turandoo ni tafdilu zul qudrati wal irada faddalani wa huwa li arada kim la tudde bokk na gaañ yi ni may wax souvent gars yi ni leen ilay yaqaal allahu ma lam yakuni sëñ bamba ji nañ ko bàyyee firee lenn yàlla bi mu ñuy wax li ci kaw suuf yépp moo nu ko defal benn maa lay utiliser sëñ bamba utiliser benn maa nañu jël maa boobu taf ko ci bële huwa allazi bopp bopp baqara xalaqa xalaqa lakum maa fi l ardi jamian mu ne ilayya qaada allahu maa lam yakun jëlal maa ji taf ci maagee xam ne sa turandoo kenn du moom e li xew te xew mooy eh eh li xew te xew mooy sëñ Xaadim li xew te xew mooy sëñ Touba loo làqu jóge ko ko boo génnee nit ñi riig la ko kiñ la tudde yow ku làqu jóge ko lu baax bu génnee ñu koy wax lu baax rek ku làqu jooy ko safaan bu génnee ñu koy wax safaan jaran te duñ te duñ ci rus lu ko waay lebal buñ la ko fay buñ la koy fay kenn du xam nu mu demee gaynde yii toog boo gisee yamale wuñ làkk ku yàlla sàkk la nga yamalewul ak sëñ Bamba ku yàlla sàkk tax par force loolu la lay fayee faw ñu mel nii ci yow ah ñii par force ñu mel nii ci yow képp ku bëgg lu baax bëgg sëñ Tubaa dina la bëgg ku làqutu wax la safaan bëggut sëñ Tubaa parce que suñ tubaab ku ko bëgg saxol day lèr té do yam ci nangu dogalu yalla lu yalla dogal dalay neex té li nga mel yalla ko def man am ñuma xam fi ku mel ni Mor Massamba léegi mu ma man duma jayaté dé mais ni nga mel fi nga tek Cheikh Ahmadou Bamba la gis nga wala fi da ñuy wax ni ku wax feñ dama dégg ñuy wax way way seigne Touba di ko waxé lan fi nga tek seigne Touba wax yi ñoonu wax li fi nga tek ci Amadou Bamba da nga wax ni du nit mësta doon nit tab bi mu yobale rek li du nit bañ def lu nit man mom rek le góor dan nuyu ànd ak doomam la man nga ni ko alxuraan ji moo yeggagul mu ne la ko fi ma def ci moom lu gën alxuraan lu gën alxuraan yàlla kese la sëñ Bamba yàlla la daa def ci nit ñi alxuraan dara gënu ko benn arafu alxuraan a gën sayiduna muhammad wa harfuna alwahid min min nabiyina kon ki naan bàyyi ko fi def ci moom lu gën alxuraan lu gën alxuraan du dara lu dul yàlla yàlla la daa def ci nit ñi sëñ Tuubaa yàlla la daa def ci mag ñi sëñ Mamar Absa sa maam bi mu ko nuyoo mu ni ko noo def ak alxuraan dani ko wattu ko ba mu ma koy bind du ma ko ges sëñ Mor Absa moo may sëñ Mbay Saar foofa ñuy wax kër sëñ Mbay Saar ci njaareem ñoo làng boo taxawee kër sëñ Mor Absa da ngay kër sëñ Mbay Saar sëriñ Saaliwu Lo mooy xalifaam am na ñeenti saaliwu benn bi jiite na jumaay njaareem ñaar fukki at ak juróom bi mu nuyoo sëñ Tuubaa bi mu ko laajee noo def ak alxuraan mamar dani ko dama koo wattu ba bu ma koy gestu bu ma koy wattu bu ma koy bind du ma ko gestu sëñ Tuubaa ni dina ba yàgg ni ko ana noo def Tiri xam-xam yi mun ko ëndaale na juroom ñaar fukki ci sama gargi, gi sama galgi, gi bu nu leen lakkoon dina leen bindaat xana koku andi na dara waye Sëñ dara du dara fi mom mu ne ko andi nga sama kër lu fi ñak solo sëñ morab seni groupe am ku yëngu ci caisse yi Sëñ Tuubaa ni ana koku ki nga doon tuddu legi Bamba ja ahmadou Ndumbe xabaanaa ni ko nun la ma Ndumbe mu ko bismillah seigne ma mbey ak si ni groupe sukk ba bu omi yi ben souf ci si musu jootal sëñ tubaa rocci roxo bi sëgg nanguwul la xol seigne touba mu ne ko moom sama keur lii fi maye dara sëñ ma ndumbe jóg sëñ moor laxasaayu top ko bis bim ko njëkkee wolu wat bim ñewé seigne moor ab daf ma ni momar sal qur'an ndax mën nga ma ci am masal dara sëñ Mor Absa nee na ma ni ko waaw boo ma ko sante mu ni ko bismillah jàngal ma suratu fatiha moom alxuraan nga tax mu rocc alxuraan ji denc ko sëñ Mor Absa ne bismillahi rahmani rahim xamul fu alhamdulilahi rabil alamin nekk nee na bi ma sëñ bambay roofaat sama alxuraan roofaale na ma juróom-ñaar fukki daraja yu ma ñëwaalewul kër moo moom alxuraan yàlla wax sayiduna muhammad suratu fatiri aya 31 summa awrasna alkitaba allazina stafayna min ibadina ايه ايه ايه باتو يا مالك الملك لي وسانتا دون جوان غاي نانكوي تاس نانكوي تاس في الملك والملكوت الدهر اترنال مالا واخ واخول نياري فان واخول نيات فان بابا نيوي لم ازمان سيك سوف سين توباي خيو بون ديمي بيس بنتي سين توبا فاي خيو بيس بنتي سين توبا نينا نيو يوننتي dañuy wax sama bopp laatal ba mu des muhammadu rasulullah yowma alqiyamati tati ruslu xaatibatan wal anbiyau lahu wal kullu xad wakima yaqulu kulluhumu nafsi wa ahmaduna yaqulu ummati yarham xayra man rahima e keroog safaatul kubra rasulullah lan koy jox sëñ bamba nee na buñ ko ko joxee dinaa ko wax ñaari way mu jox ma ko ñu ni ko yan ñaari way nga koy wax mu ko dama koy damay fàttali la ma ko ñaanaloon yàlla yaa mulhiman xad wafaqa salli ala man xuliqa wal wal tusallim sëñ bi mu jël drapeau ràmm ma teg ci sama loxo ñu ni ko bindal mu ni wax ba lii xayrul wara safaa fi man ahabahum wahum jamaa àdduna la coow li bëree waaye bis penc buñ fa wàccee kudul sa turandoo du fa man dara